comme ma ko waxee sànq ñoo bokk leen te ñi fi wax waxal nañ ñu ñun ñëpp kon li fi ñëpp wax rekk laa wax leneen li may ñaax kay dafa nekk lu am solo bu ma ko doon jéem a misaal ci li nga xam ne assemblée nationale loolu lay dem benn rek laay wax ndax boo ñëwee laaj boroom kër sa kër gi lu la ci war danaan la li ma ci war bari na munu ko wax ba mu jeexal waaye am na benn boo xam ne boobu moom ku ko ne woon jukkil benn ci li la war sa kër nga wax ko mu ne la xool njaboot ji kon tey bu ñuy wax assemblée nationale bu ñu ne woon nañu jukki lenn rek ci loo xam ne mooy solos assemblée nationale dama naan dépense su Sénégal assemblée nationale lañ koy voté mooy budget budget boobu nag pour ñu voté ko pour état bi mën a def réalisation yi nga xam ne mi ngi koy def wax naa ko sànq gis nañu ci wàllu assainissement milliards yi fi état bi def gis nañu ci wàllu infrastructure TER bi ni mu dimbalee waa Dakar BRT bi ñuy nekk en chantier ni mu war a bokk ci luy décongestionner Dakar autopont yi ñu fi tabax yépp ni mu bokkee ci luy décongestionner Dakar KMS 3 bi ñu def investissement bu mucc ay nu mu bokkee ci liy indi euh, ndox ci biir Ndakaaru assainissement ba kazalika maanaam loolu lépp nga xam ne état bi da koy def pour Dakar à l'instar des autres départements ñu mën a gis seen bopp ci dépense bi nga xam ne ñi ngi koy jëlee assemblée nationale muy wàcc ci département yi di wàcc ci gox goxaat yi di wàcc ci njaboot yi ma ne ñun waa Sicap dañ ci am wàll am ci cër cër boobu ñu ci am wàll boobu ñu ci am dañ ci war a taxaw ba mu mat ndax li ñu waroon moomal suñu bopp te muy commune bi ñun ñi bokk ci majorité bi yëpp bi kenn ku nekk demee sa waaso tax nañu ñu ñàkk ko ba tey kuy laajte maire bi doo ko xam te nag dañu war a dindi ñu ñuy tànnal ay maire yoo xam ne kenn xamu ko maire askan moo ko war a tànn loolu nag li nga xam ne li tax mu mën a dañ mooy ñun ñii nga xam ne ñoo far bokk ci waaso te jàpp ne waaso bi ñu bokk moo gën ci réew ñu gën a laxasaay solaat suñuy dàll duggaat ci biir kër yi wax ak nit ñi ci enjeu yi ñu jëm ndax dëgg la de président Macky Sall soxla na mais réew mi ñu ne bu fekkee ne budget amul ñun ñooy gën a lot ñun ñooy gën a sonn comme ñun ñooy gën a lot gën a sonn nag ni ñu jóg dugg ci biir kër yi bugg ci biir gox waa Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté nag ñun suñu xel dal ndax ànd nañu doon benn say am na lu des danañ ci dox ay jéego pour loolu lépp mën a mat ndax président Macky Sall benn njukkal lañ ko mën a indil mooy ñu bokk ci ñi nga xam ne danañ ko may ndam ndax nag gëm naa ne suñu borom du gëm gëmul nelawul du tëj buntu tëj rido wàccee fenêtre te xam na ne Sénégal gi président Macky Sall lim fi def néew na néew na ku ko fi defagul te comme xamaguñu nag li fi war a mën a ñawaat lu mu fiy indi lii ñu gis lañu xam te lii ñu gis dugal na ko ci jàng bi dugal na ko ci wér-gi-yaram dugal na ko ci tabaxu yoon yi dugal na ko ci mbay mi dugal na ko ci jàng bu kawe bi dugal na ko ci dimbali néew ji doole dama ne nañu taxaw takku ndax ñun fii la ñu dëkk demuñu fenn suñu ay njaboot fii lañu ne demuñu fenn te ñi jàpp ne mars li fi xewoon foog mu ñëwaat ñun bokkuñu ci loolu te bokkuñu ci suñu ndaw yi suñu meer yi ñu tànn fal leen ñoom tooguñu ne ñun waa bennoo rek lañ fi nekkal ay waay maire bennoo bokk yaakaar bu ñu waxoon loolu coow li dana bari plus de 500 collectivités territoriales bennoo bokk yaakaar jiite ko waa ñoom bu ñu ñun meeru bennoo yi rek la ñuy waxal fu ñu jëm kon nag réew mi benn bopp la bu ko kenn xar dafa jot assemblée nationale ñu fay teg ñoo xam ne subaa ngoon guddeeg bëccëg dañ fay dem du ñu bàyyi ba ay caméra ñëw ñu ñëw du ñu tëjoog yow cib néeg waxante fas génn fecc te loolu ci suñu loxo yii la nekk li ne suñu loxo yii nag ñun ñii yor kàddu gi ak ñeneen ñi nga xam ne dañu yor seeni kàddu ne ñu fexe dem jël loolu lépp teg ko ci loxo président Macky Sall ndax jàpp nañ ne moo gën ci réew maa ngi leen di samp di leen gërëm jërëjëf